yàlla nañ ci yàlla defal nu dugg ci bisimilah rahmaani rahim. génn ci alhamdulilah rabil alamin yàlla sunu borom defal nu yoolub ziar. defal nu tàmbali bii nu ko tàmbali. yàlla na yàlla def mu mu mu doon uh, sunuy tàmbalee tàmbalee tàmbalee bii bañ a doon sunu mujj tàmbali. noo ngi teeru gan ñi. Mm-hmm. di leen ñaan ñu eh, dikk ci jàmm. Mm-hmm. delluwaat ci jàmm. Mm-hmm. ma bëgg nun waa Touba Refane nanu wàcc lal yi. genn néeg bay ko gan yi defal leen bernde yi eh, te bés bi nga xamante mooy bés bu njëkk bi di guddeeg maam Cheikh Rafal ma bogg nu jàpp ci bu baax a baax a baax teel a génn néeg yi dem fanaanoo guddeeg sikrulaa gi nga xamante ne gi moom la Cheikh Ibrahima Fall doon yëngu nu eh, fanaanoo sikar ba bés set eh, ñu dugg ci bésu Serigne Touba bi fas yéene magal Serigne Touba waaw yi nga xam ñoo dëkkee dëkk bi di Touba Refane te Refane ku ko xam xam na dëkku diine la dëkk la boo xam ne Sëñ Touba moo ko tanal boppam kon yoon la yéen ñi nga xam liggéey bu dee boobu waaw dénkaan ndaw yi dëkk dëkk bi waaw xam ne ku ko ci mën a sukkandiku waaw kon sëriñ bi loolu nga wax lu rafet la lu am solo la mhm. ndax Touba Refane bés la boo xamante ne bii ni nga xamante noonu la ko mag ñi tàmbalee woon xale yi noonu la ñu ko war a euh, toppe ci seen i tànk jàppe ko noonu kon mag ñi dañu ko tàmbali woon ci ak taalibe ak ab ki teggin ak jëf ju réy kon nun ndaw yi war na nanoo am ab yaraki teggin te jàpp ci bés bi nga xamante ne mooy bés bu Serigne Touba bi bés bi nag doon na bés bu am solo boo xamante ne bii ndaw yi war nañ ci amee luñ ci jànge ndax loo fekk say maam di ko def nga ñëw fekk léegi say say baay di ko def nga ñëw léegi say dugg ci biir bi mhm. kon loolu yow ci sa waru bopp war nga ci am ak dal am ci yar ak teggin mhm. to teru gan ñi teral leen mhm. loolu daal lay denk ndaw ñi ndax dafay am loo xamante ne lii suñu la ko sencalee nga judd fekk ko fi waroo ko bàyyi mu nax saay kon loolu ndawi Touba Refane war nañ ci jàpp bu baax baax ndax bi bés bu am solo la waa Refane TV di dilen sant di dilen Nyanal, te di euh, ñaanal dem bodon doon ay télé télé yàlla sunu borom yàlla na leen defal leen xiiwal ak jàmm ndax lii ngeen di def nii di ko def ci biir dëkk bi lu yelloo lu li dëkk bi yelloo la ndax béréb bu Serigne Touba julli woon ku ko amul woon dootoo ko am faat na kon euh, bésub Serigne Touba bi bu ngeen ci ñëwee léegi sey bàyyi seen lépp pour bëgga a euh, defar bés bi kon loolu war ngeen ci war na nee na ñaanal ngeen am ci euh, ak yaatu ak ak yokku loolu laa leen di digal yéen eh, yéen waa Touba. kontaan nañu bu baax ci yow Baye Djim Ndao ñu ngi lay nuyu baax di la siyaare ah, di la ñaanal yàlla yàggal la fi lool ah, te yagal sa taxawaay fii ci Touba Refane ah, mu nekkoon Baye Diouf Refane TV moo lay nuyu waat di la siyaare bu baax di wax ne guddeeg maam Cheikh Rafal gi na ngeen u faxaan fay ñëw léegi ci kanam incha allah وواسع ويفضل وواسع and again.